ma xool am naa entreprise bi def naa ko si dugub bi da koy tëj saa yu may defar saa bi rek maa ngi ko ciy def. waaye fu xale bi ëmb na xool xale bi ëmb na client bi dafa mën a ëmb si na. xale bi bu jekkee jëkkër ji bu ñëwee rek ëmbal ko mu waa maa di woo yow nag sa jëkkër ji ñàkk na kees day ñëw rek ëmbal la nga ñuul. mayal kii mu toog moom nga noboon ay temps yaa ngi koy fàttali boo demee rek mu naa ma xale client bi rek laa nopp. Mam lingo ha? xanaa gitu, sa gitu,